te jigéen dafa yiw yàlla xam na ko jigéen dafa yiw dëgg dëgg dëgg bu ko bàyyi mukk mu yiwati mukk te aada moom dara safu ko aada aada dara safu ko taa rek te xam naa yàlla it comme wa tilkal ayaamu nu daawiluhaa bayna naas xanaa léegi mu may nu bokk jigéen yi yilif nu bokk lu bon bon seet rek jigéen ñi nekk ay président ki yu kenn xam xanaa léegi mu jot bopp ma benn mbokk bind ni ma benn soxla rek la am mooy nga ñaanal ma ma nekk président Sénégal ma ne ko waaw boo kay moom tubarkalla nu defal la ci ñaan rek waaye itam aayul ndax ambition la wallaay ndeysaan mu mel ni lool rek mooy li nga xam ni moo fi nekk